bismillahi irrahmaani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ca loxar layu seen mbokk Adja Isa Sud FM seen rajo ci seen jeetaay yi tafsir mi leen defal ajjuma jot waxtu wi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 38 surat Dariyat muy surat numéro 51 waaye ni ñu koy baaxu ji defe mooy jàng al ayat dooru ñëw ci jéem a firi ak jéem a tekki aouzu billahi min alsheytaan arrajim wa fi muusa arsalnaahu ila firawna bi sultaanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qaala saaxirun aw majnuun fa axasnaahu wa junuudahu fa nabasnaahum fi lyammi wa huwa mulim fa nabasnaahum fi lyammi wa huwa mulim sadaqallaahu al-aziim wa ballax rasuluhu al-kariim wa naxnu alaa maa qaala rabbunaa wa mawlaanaa mina shaahidiin allahumma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 noo ngi toll ci aaya 38 jàpp 40 sunu boroom am kum joxoñ ca ñam yónni woon ci ñun mu di Muusa noo ngi jéggul ay bis gii di ñëw nag ni ni tafsir bi jeexe ndax mbirum temps la tabaarakallahu euh, jéggulu ci bu baax a baax Muusa alayhi salaam xissaam la ñu nekkoon ndax sunu boroom moo ne wa fii Muusa wa fi Musa mu ne dara daraa ngi ci Musa Musa mii mu ne mu ne daraa ngi ci de nu ànd nu ñëpp nag mag yéen di di jéem a seeti dara jooju is arsalnaahu ila firawna bi sultaani mubin firawna fatawalla bi ruknihi wa qaala saaxir aw majnuun mu ne kii moom ñaara ko jàpp benn dañ koo jabar mbaamu dof sunu borom nee na fa mujj mooy ñu jàpp ko moom jàppaale soldaar sa dëxëñ leen ñoom ñépp ca dex ga waxuwa muliim yedd ko moom waxuwa moom firaw na nag muliim waaw ñu dëxëñ ko labal ko yedd ko mbokk tolloon ci tomb yi waxoon nañu wàccuwaayu Muusa alayhi salaam indi woon ci ay aay yu am am solo yi alxuraan indi nga xam ne boo ko jàngee xam ne Muusa mii du ca ma waaw ba nu ca jógee ñëwoon nañ ci xissab Muusa alayhi salaam ca juddu ga ak la ko yóbbu pale ca kër Firawna ba nu ca jógee jaar nañ ci digganteem ak kam ci pinc ma waaw jaar nañ ci ci bind yi nu weesu bañ ca jógee ci lañ tolloon ci Moussa agsi na Madyana musaa agsi na Madyana keroog bi ñu yëkkati jataay bi ñu ngi tolloon ci bi muy waxtaan ak góor gi muy waxtaan ak góor gi waaw agsi na Madyana ma ngay waxtaan ak euh, góor gam fa fekk ñu ne mooy bu yonent boobu nga xam ne mooy Abu Madyana ñu gis ne keroog ba muy tàmbali di waxtaan bi mu agsee xale ba daf ne baayam istaajirhu jàpp ko surga surga day am doole waaye surga day day sérieux papa ji gëm doom ji ndax nuun la leen yare daa di proposé surga bi euh, ñaari yëf doon sama goro waaye sàmmal ma inni uridu an unkihaka ihdabnatayya haatayni dama la bëgg a may ci sama ñaari doom yi kenn waaw dama la bëgg a may ci sama ñaari doom yi kenn waaw daal du dellu Égypte di seet noo fa deme kuy sa baay ci ban yax nga bokk waaw looy liggéeyi man daal li ma dégg sama doom ji wax ko ci lay sukkandiku fas la fas la ci yéenee may kenn nekk sa goro charte bi nag mooy danga may sàmmal juróom-ñetti at suma ma tee fukk ma jël bëgguma laa sonal waaye sa tajiduni insha allahu min as-saalihiina mbokk yi salaaxiya googu na nekk ci képp kuy liggéeyloo nit salaaxiya gii góor gi joxoñ Shuaybu te wax ko ganam gi na nekk ci képp kuy liggéeyloo nit moo xam ab état la moo xam ministère la moo xam euh, entreprise la moo xam société la fu mën a doon na nga fexe ba dégg wax ji sa tajidu nii inchaa allahu min alsaalihin la ko jiitu mooy wama uridu an ush an ashuqa aleyk travailleurs yi sonn nañ lool syndicalistes yi xam nañ ci dara góor gii di Shuaybu mi ngi jàngal waa pénc mi alxuraan dina ko nettali waaw directeur nu mu njiitul entreprise njiitul société waaw njiitul ministère waaw njiitum réew njiitum assemblée waaw ba ca conseil économique social et environnemental <laughs> góor gi daf ne surgam bi dama la bëgg a may kenn sama ñaari doom yi li mu tekki mooy xaat xeebut surga bi xeebut surge bi bu doon ab safóoram xeebu ko waaw waaye nit ku lay dawalal te musta dugg sa kër nit ku lay dawalal te musu leen bokk añ du ngeen bokk taabal moom daal ma nga ci oto ba rek boo ne ñoo xeet mu ubbi la bunt ba nga dugg mu tëj daal di taal dem mu ñëw ci buntu kër gi toog wala ñu defal ko ci pakku suusu mu toog ci pakku ba bu ñu dem nga romb ko doo ko wax sax bisimilah ñu dem barab sàngam da nga yéeg rek toog mu tëjal port bi waaw nga naan ko gauche ak droite ngeen jëm foofu ay bu noon nee na loolu normalut wa maa uridu an ashuqqa alayka di liggéey loolu nit di ko teg lu mënut yonent bi nee na bàyyi leen santaane ñaari yëf waaw moo tax benn bis eh, Abubakar Saddiq dafa am jànq mbindaan waaw jànq mbindaan ba di boyal këriñ la jeex mu dem jënd li ko këriñ waaw ñëpp waaru mooy leen sunu sëriñ ba moo na ko jàngal bu ñu sa bu ñu sant jànq ji ñaari liggéey booyal ak jëndi këriñ mu neew ñëwal Dakar booyal jëndi këriñ fóot paase root raxas toilette ah bale kër gi taal reer waaw ndeysaan bu tëdd jotee nga tëdd ca waañ wa waaw bu ñu reeree ba noppi jox la des wa yàlla na nu yàlla yërëm ba noppi nag bëgg bëgg barke am ak ay wàll yooyu ñoom seen yooyu loolu du yomb waaw loolu du yomb ala kulli xaal góor gi nee na kii mu bëgg a nekk gorom wa ma uridu an ashuqa aleyk duma fi teg loo mënut kër gi mun naa mun ne ko duma la fi teg loo mënut te it sa tajiduni insha allah min as-saalihiina danaa bokk ci patron yi nga xam ne salaaxiya googu mbaax googu day ne ci ñoom duma la ameel ab dërëm duma la xeet mukk duma lekk bàyyi la duma tëdd bàyyi la duma sol bàyyi la allahu akbar te tey la ma sa gis gan gi waaw tey la ma sa gis gan gi mu di Musa alayhi salaam xaala Musa daal di ko delloo delloo kàddu ga Musa daal di jëlaat kàddu ga ne ko dhalika baynii wa baynak ayyamal ajalayni xadaytu ba dima ca suratu alxasas noonu la ko fa ne ko bu ma ci mën di def rek wallahu ala ma naqul wakil signé naa contrat bi te yàlla moo ko seede wallahu ala ma naqul wakil noonu la ko fa waxe ndeysaan signé naa contrat bi te yàlla moo nu doy seede mbokk yi maa ngi ci suratu daariyaat maa ngi ci aya 38 yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot mu dugg beneen tomb mooy ña ngay yónni ña ngay yónni Muusaa ña ngay yónni Muusaa <laughs> xam naa bu ñu nee ña ngay yónni Muusaa seen xel dem ci àdduna fii mu toll tey waaw noo ngi ci vingt ah, vingt vingt yonent bi noonu na trente trente et waaw bid'un wala bid'atun bid'un wa euh, thalaasuuna waaw fanweer ak nangam ginnaawam danañu wax ni ay yónnanti lañu waaw yàllaa ma yónni waaw ay yonant ah waaw waaw dem nag ba ci àgg ci sampu kaaba nag loolu benn affaire la maanaam léegi am nga sa alxuraani bopp am nga sa kaab bopp ah am nga sa tabaski bopp bay tabaski nit bay tabaski nit tabaski nit tabaski waat loolu loolu moom moom daal mu ngi noonu sunu penc nag xaaja Abdul Aziz daana wax ne lu lu fi xew a gudd rek daa xew a gudd waaye lépp a fi mën a xew ndax laisser-faire gi xaaj Abdul Aziz moo ko daan wax dabbaax radiyallahu anhu taala anhu nee na suñ ci mii xanaa lu fi xew a gudde waaye lu nee fi mën a xew waaw lu nee fi mën a xew mu yéen kaaba gële Ibrahima tabax adduna bëgg a dox ba amaat geneen kaaba ne senegaal la koy ame laa ilaha illallah nga xam ne kon su boobaa nit ñaa ngay tawaaf kaaba ga xaw ma nag ba xam bool nañ ci safaak marwaam déet ak maqaama ba fay nekk nu muy tudd loolu mbokk yi mooy xew ci suñ penc mii te ab yonent laa ëpp naa wax waaw ab yonent laa ëpp naa wax yàlla ma yónni waaw ëpp naa wax tabax sa kaaba ëpp naa wax ah waaw julli sa julli bopp nga xam du ta allahu akbar yaa ngi wax ne Dieu est grand waaw Dieu grand fi ngay waxee bismillahi rahmaani rahim leew kay bàyyil Dieu grand te wax leneen waaw peut yeneen baat yu bokkut ak allahu akbar te bañ koo firi alayhi salaatu salaam jàngalewul julli googu jàngalewul tawaaf googu jàngalewul yooyu suñu woy ñu nag sëñ sëriñ Saaliw daan wax ne lu ñëpp xam lu ci waay wax mu doy mbokk yi Muusa wa fi Muusa is arsalnaahu ila firawna Muusa dafa daldi jóge Madyana ba mu jeexale contrat ba na ko ko góor ga waxe woon la ko jeexale defal na ko ci fukki at fukki at la fa def may nañ ko kenn ca gone ya waaw alxuraan nag ginnaaw du ko yitteel du nekk naan xore yaag nifir lañ ko may déedéet moom daal góor ga noon na ko danaa la may kenn may na ko ca kenn waaw su ko defee tudd fa turwaag ñoom seen yooyu alxuraan li muy jëfe lu bariwut may na ko ca kenn sàmmal na ko fukki at santante nañ gërëmante nañ waaw santante nañ gërëmante nañ léegi nag lu des mooy ñibbi mbokk yi bu defal na gorom bi lu am solo mooy formation politique école politique wala école du parti ni ko parti daan amee Shuayb bu amoon na kon école de parti formé ca benn politicien bu ñu wax Moussa yóbbal ko li ñu war a yóbbal lépp ab politicien gis nga fukki at yëm am ci àll bi raar googu dafa baax ci politicien moo tax ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy conseil en communication politiciens yi di leen moytuloo caméra yee écran yi di leen moytuloo sid yi waaw ndax raar googu dafa baax dafa baax de bu nu jàngee xissam yusufa xam nañ ne atam yam def ci bitti bokkut ak atam mu def ci ci wetu baayam am na solo lool ab politicien jékki-jékki raar sori micro yi sori caméra yi waaw fi ne léeg-léeg nga gis lu ñu tuddee tey média d'état média d'état état jàpp ni mi ngi koy liggéeyal ndekk mi ngi koy yàqal ndax réew yi mel ni sunu réew yi euh, soo soo bokkul ci eta say say manifestation say yëf moom du génn te télévision bi ñépp a ko bokk média d'état la waaye lañ koy tuddee ngeen baal ma nag ci misaal moom waaye mooy dëgg waaw média d'état bu ñu bàyyee média privé ak opposition média d'état jël état su boobaa li nit ñi bëgg a xam ci opposition duñ ko xam te it raar googu ñuy raar bañ a génn dafa am point yum leen di may ci force di leen ko may ci ñàkk raar di leen ko may ci yooyu donc Moussa dem gi mu dem am fa fukki ak am na lu muy tekki écran yi gisatuñ ko ca <laughs> site ya gisatuñ ko ca réseaux sociaux yi gisatuñ ko ca moral rek ne men ne mes ne menteñ ngeen baal ma waaye noonu la ne mes ne menteñ foofu mu dem takk na fa jabar jàng na fa sàmm jàng na fa xalab jàng na fa bàcc sidéem waaw xam fa njariñal dokk njariñal dokk waaw tabarkalla boo boo boo xoolee foto sunu maam ja euh, Cheikh Omar euh, al Fuuti ndeysaan nga gis mu ŋàbb dokk bi ndeysaan mu am ñaari càq ca kaw waaw ñaari càq ñu koy tuddee ab roq <laughs> ab roq waaw xam naa beneen bis danañu indi loolu ci wolof ab roq akub daba <clears throat> Moussa tàggu góor gi góor gi yóbbal ko nam ko dalale woon waaw najawta la ko waxoon ma wax ne li tax mu ne ko najawta min xam daalimin mooy nit ku am problème kenn du ko yokk ay problème nit ku am problème dañ ko wutal solution waaye problème nga yokk problème loolu baaxul loolu baaxul waaw kuy jàngale diine waru koo def kuy jàngale politique waru koo def kuy jàngale économie waru koo def ku jàngale environnement wala social wóoru koo def nit kenn du ko yokki problème mu ami problème xam nga jeeg bu jaaxle ci sëy ba ñëw wax la ba noppi nga naan ko kii def laa yeb àdduna ngay tukki wala demal ñibbi àdduna ngay tukki déedéet waaw da koy muñ loo ba noppi wutub cinq mille jox ko <laughs> bu la fekkee kub cinq mille musaa daal di tàggu góor gi saan góor gi ñaanal ko daal di yeb ko léegi nag Moussa ngi ñibbi ñibbi gi nag moom daa jàppoon ne ñibbi gu sempal lay doon loolu la jàpp ñibbi gu simple ku gëj ci say bokk di ñibbi si mu jàppoon ni ñibbi gu sempal lay doon waaw mu dox ba guddi ne ci montagne yi waaw wuti Égypte fukki at la gëj fi jaaroon waaw fi mu jaaroon bi mu ñëw fukki at a ngi nii jaaru fa mën naa am yeneen tool amaat fa mën naa am yeneen amaat fa mën naa am yeneen yoon amaat fa waaw ndeysaan benn bis <laughs> dama jël baay mbay ci oto bi di ko yóbbu jaar ci benn pont làqar ci làqar ci waat mu ne waaw fii fana mu ne ko ah, yaa ngi Dakar de mu ne ah man di fii kon gëj naa fi mu ne ko xaw nga fii gëj kay ndeysaan bàyyi mbay yal na ko yàlla yërëm Moussa bi muy dox ba guddi àll yooyu leek leeg wis-wisal mën na faa am ab liw mën na faa am ndax montagne yi la wër li ñuy jël ci e, glace geeg ñoom seen yooyu Moussa daadi di e, séen nag dara waaw Moussa daa di séen dara lu mu séen dafa séen aw sawara waaw dafa séen aw sawara ñim àndal mu ne leen inni anastu naara allahu akbar inni anastu naara boo xud raaytu ndax da koo sori waxut raaytu inni raaytu déedéet anastu naaraa la wax waaw séen naa séen aw sawara séen naa aw sawara mbokk yi séen naa aw sawara sunu borom xam-xam yi jàngale ilmu tasawuf tarbiya wala tarbiyatu ruux wala ilmu tazkiya inni anastu naara wala inni anastu min jaanibi tóori naara moo di ku nekk ci ñun muy man mii di wax ak yéen bul yàlla bëggee gindi benn bis ngay ngay aanasa min jaanibi tóori naara léeg-léeg mu doon loo jàkkaar lool léeg-léeg mu doon loo dégg nekk sa kër ba mu yàgg nga ubbi sa téléphone taseeg benn vidéo vidéo baa nga jóge ca euh, Ngaabu waaw oustaz Ibrahima Khalil Lo wax jooju mel ni ci yow ana samin jaani bi tóori naara naar mooy sawara sawara day leeral nga seetaan audio bi am lu jóge ci audio bi dugg ci sa xol mbaa ci sam xel vidéo Ibrahima Khalilou boobu bàyyi ci sa ci sa yaram wi ceeneeri leer mu fekkoon la nga baax ngay nga jéego jéego bëgg a gën a baax mu fekkoon la nga sàggan nga jéem a jóge ca càggante ga wala benn bis benn vendredi mbaa dimanche nga taal benn télévision seen al oustaz Ahmed Dam mu toog di wax ba mu yàgg nga daal di yëg anas min jaani bi tóori naara am lu jóge ci waxtaan wi oustaz Dam di def daal lay dugg waaw nga yëg ne ah waaw rek dama ko misaal ci ñoom ñaar waaye képp koo xam ne yaa ngi nit diine man loolu mën naa am nit am ko ca seetaan nag bëgg ko seetaan ba sañoon booy seetaan danga nga yéemu ci waa ji boo noppee ne dafay wax dara ak boppam bu réy bi waaw seetaan loolu lay bëgg waaye fii ba demee ca sootul xasas fa lamma qada muusa al ajal wa saara bi ahli anasa min jaanibi tuuri naara lisan ndek naara jooju muy seen naara ja moo ko bëgg xëcc pour mu ñëw mu sol ko yi mu koy sol mu ñibbiwaale ko donk dañ koy mottalil formation bi moo tax njàng doyut mbokk yi jàng doyut informé wu doyut déedéet doyut de dëgër aw fit doyut mukk Shuayb bu formé na Moussa formation yam ca man mi ngi koy paas sunu borom mu mottili formation bi waaw jalla jalaaluhu azza kamaalu waaw wa allama asmaa kullaha ah Moussa ngay ñibbi seen naw sawara seen naw sawara mu daal ne ñëm àndal toog leen fii inni anastu naara siin na sawara ma nga nële la di leer aw sawar lay niru su ma ca demee danaa indi benn bi dinaa ci indi ñaar xabar wala jazwa danaa indi xabar walla ma indi jazwa xabar mooy danaa ci amee xibaaru yoon wii ngeen jaar jëmul Égypte wala yoon wii ngeen jaar Égypte la jëm loolu mooy xabar bi jazba bi mooy aw xal ndax ku taw te wala nga liw da nga soxlaw xal bu indee wa buñ ca jaaroo danañ jëlaat form danañ jëlaat kon euh, cawarte mhm. ah njaboot ga xaar ko fa njaboot ga xaar ko fa xissa bi daal di jàngale responsabilité xissa bi daal di jàngale responsabilité mooy bu bu bu danger amee walla nàngam-nàngam responsable moom lañ ca war a ñuux hmm? waaw fi ne bu nu bu nu demee yomal xiyam <laughs> bañ agsi ci séddale téere yi am na diir boo xam ne bii sunu téere ci loxol Senghor lañ koy teg mu lay ca lam ca mën a lay mu am diir boo xam ne bii suñu téere ci loxol Abdou Diouf lañ koy teg mu lay ca lam ca mën a lay mu am diir boo xam ne suñu téere ñu ngi koy teg ci loxol Maître Wade mu lay ca lam ca mën a lay mu am diir boo xam ne bii suñu téere ñu ngi koy teg ci loxol président Macky mu lay ca lam ca mën a lay moo tax responsabilité googu kuñ ko teg ci say loxo sas nañ la sas wu garaaw waaw ñuux nañ la fu garaaw maa la ko wax de samp nañ la fu garaaw moo tax kooku ma si wax mu ne mukk waaw mukk <laughs> waaw ala ko li xaal Moussa ngi koy jàngale benn bés dañuy seetaan ci euh, réseaux sociaux yi euh, ay picc yuy dox di jéggi tëli waaw menn picc taxaw ci digg tëli bi mel ni ku naan morom yi jàll leen ba picc yëpp jàll moom mu door a jàll oto yi taxaw mu ne aw oh, laa ilaha illallah lii de ñëpp a ko war a gis ñëpp directeur yeeg njiit yeeg borom kër yeeg aawa yeeg ñëpp ak président assemblée nationale ak euh, attekat yeeg ñëpp a ko war a gis ala kulli xaal Moussa li muy jàngale tey ci fii mu toll ci xissa bi mooy mun a njaboot gi toog leen ma dem waaw indi ñaar yi benn danaa indi xabar wala ma indi jasba te kat xamul lu nekk ca sawara wa xamu ko xamul ay agresseur lañ xamul luñ mën a doon waaye moom daal am na fit wu toll ni dana ca dem mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk yéen ak seen njaboot maa ngi ci dóoratu daariyaat maa ngi ci ay 38 jàpp 40 wa fii Muusa fi Moussa ah Moussa di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc bana jafeet fa mu jëm <laughs> bana jafeet fa mu jëm fa lamma ataaha ca alxasas am lu ko woo am lu ko woo fu mu ko wooxee déglul na alxuraan di ko jàngalee min saati il waadil ayman fil buqatil min ashajara looloy adresse bi waaw ndaw adresse bu lay bàyyi lay gay ca desertif yi ndaw adresse bu leer bàyyi lay min shaati il waadil ayman muy benn fil buqatil mubaaraka muy ñaar min ashajara muy ñett adresse bu leer a noonu moo tax penc mi tam loolu la ñu bëgg waaw information yi nay leer gis nga penc mi ñi leen di joxe information buñ leen wóoloo luñ wax ñu jël buñ xasee am dut bàyyi la boo leen waxati gaynde gaag ñëwit dañuy toog bam lekk leen rek waaw dañuy toog rek ba mu dal ci seen kaw waaw moo tax fajkat yi war a góorlu ci loolu ba am ko politiciens yi war a góorgóorlu ci loolu ba am ko jàngalekat yi war a góorgóorlu ci ba am ko attekat yi war a góorgóorlu ci loolu ba am ko lan mooy naleer leer nañ nga xam ne booy wax du ci am ñug ñugal ak jàppal bàyyil déggal rek min shaati il waadil ayman fil l buqaati l mubaaraka mina shajara foo dëkk mu ne Dakar ci fan ci Dakar jëppal fan ci jëppal jëppal 2 villa numéro 24 13 b <laughs> ctt allahu akbar leer na nañ waaye ci ginnaaw kër bi laa dëkk rek non fii rek soriwul ah leerul waaw kon sunu borom nettali ca xasas euh, barab ba waaye mbokk yi min sharaati ilwaadil ayman waaw kéema ju xurwa ca wetug ndeyjoor ga kéema ju xur mooy daanaka fa xurwa jeexe fil buqaatil mubaaraka mooy ca pàkk bu barkeel ba ca roqosu barkeel sa ba nga xam ne dañuy tere Moussa mu sol fay dàllam dañuy tere Moussa mu sol fay dàllam summil sa dàll yi mu tax summi dàll yàgg naa am waaw mag ñi jël ko nag ñoom it di ko def mu tabarkalla am solo lool waaw mu am solo lool ak la ca nekk ciy bind mu ne sajarati ca garab ga hmm, dégg na kàddu luñ ko wax yaa Muusa man mii nga fekk fii may yàlla inni ana allahu rabbul alamin hmm? man nga fekk fii may yàlla Moussa ni groupe ndax kàddu yi mu dégg diis na te gauche ak droite ak fépp la ko dégg la ko dégg waaw yaa Moussa inni ana allahu rabbul alamin mbokk yi message bii nag la Cheikh Abdul Qadir Jeylaani déggoon sultaanul awliyaa ndeysaan message dégg message bu ne ko man mii may yàlla mu ne ko waxoo dëgg ah <laughs> waaw waaw ab message ne ko inni ana allahu man mii may yàlla mu ne tekk ne ko waxoo dëgg waaw waa ji door na ñoxeet nekk iblis ne ko waaye loola waxal ne waxuma dëgg maa yàlla kay yaa yàlla rek mu ne ko déedéet yàlla ba muy wax ak Moussa ca xurwa son bi jógewutoon benn côté son bi fi na rajo bi ngay déglu nii fi nekk xam nga ne rajo bi daf laa féete gauche wala mu féetal la droite mbaa mu féete ci kanam mbaa ci càmmoñ ñeenti xibla yi rajo bi nga may dégloo nii nun la def waaye rajo bi dég déggoo ko ci sa côté yëpp mu wër la yàlla nag ku muy waxal comme jalla jalaalu wa azza kamaalu mi ngi fépp fépp nga koy dégge iblis na ko ah yaay ngand mu ne ko déet yóbbaaleel sa baat boobu bala ngaa dem sa yaay ngand jooju nga ma wax ko <laughs> tabarakallah waaw sa yaay ngand jooju mun naa ah, mun ne ko yóbbaale ko ndax boo ko fi bàyyee ma bàkkoo ko te su ma ko bàkkoo yàqu te su ma yàqu li lii nga def tey boo ko defee du ma jàll mu ne ko wax nga dëgg de ay li ma ci jàpp ci ay gaay mbokk yi sunu boroom Muusaa ngi ci xur wi ma nga ci xurwa ma nga ca albuqaatul mubaaraka ma nga ca garab ga boroom bi wax naag moom jalla jalaaluhu azza kamaalu léegi nag mi ngi war a dem ca fam jëm sunu borom bëgg a mottali formation bi ci waxit nag la ci Shuayb bu def Shuayb bu jàngal na ko sàmm ku nara sàmm nit dangay ngay sàmm xar sàmm xar dana dimbale nit ci mu mën a sàmm nit xar yépp wenn yet lañ soxla nit ñu ko nekk yetam nit ñu ko nekk naa leen ka nekkoon bitim réew di lal di jaay fu ñuy tere bu police bi ñëwee tere ko dem mu jël si lalaat mu tere ko dem mu jël si lalaat une troisième fois bi police bi ñëwee ne ko tey terewuma la damaa am question mu ne ko lu xew mu ne ko foo dëkk mu ne ko Sénégal mu ne ko ñaata ngeen mu ne ko mat nañu seize million mu ne ko bu ñëpp melee ni yow de yërëm naa ka leen jiite <laughs> ma ne ko daanaka nag ñëpp ni moom lañ mel daanaka ñëpp ni moom lañ mel waaw xam naa du ñëpp waaye daanaka rek ñi ëpp boog ni ngóor suusu lañ mel yàlla kon mi ngi sof formation bi ci formation bële jàng na sàmm am na responsabilité denc na soxna nangam nangam waaw léegi lu ci des mooy ñibbi agsi na ci xur wi ma nga ca fil boqaatil mubaaraka ma nga ca shaati il waadil ayman ma nga ca mina shajara suñu boroom nag daal di koy laaj nag loo yore loolu ci sa loxom ndeyjoor bi lu mu doon ba dama ci saar wa wa ma tilka bi yaminika ya muusa loolu nga yore ca seen loxoom ndeyjoor bi lu mu doon hmm? mu yàlla xamu ko aha kay waaye jàngalekat mooy def noonu jàngalekat day mën a laaj laaj yu am teggin te leer waaw yàlla na yàlla jàppale sunu mbokk Sëriñ Mbàkke Sylla waaw yàlla may na ko ci loolu waaw formation bu am solo la ci wàllu googu hmm? waaw waaw question yi ni mu koy posé yooyu ndax loolu daaraa ko am soo so soo daan topp mbokk mu ñox Moustapha Jaxate nekkoon na fii ci Sud yooyu loolu la ko yàlla may xibra boobu la amoon waaw macha allah moo tax yàlla di jàngale jàngalekat nu muy def ndax yàlla xam na li ci loxob Muusa loxom ndeyjoor bi xam na ko waaye musa mu yor yar bi nag moo xamagut lim yor ok yàlla xam na li Muusa yor waaye Muusa moom mi ngi yor yar bi te xamagut lim yor ci question réponse bi nag ci lay xame moom lim yor ah man ndekete lii ma yor du yet kese waaw c'est des question pertinentes yoo xam ni ci pénc mi day am laaj laajin yooyu ak façon yi léeg nga seetaan ci débat yi benn laaj baax ñaar baax ñett ñeenteel ba ñëw nekk laaj boo xam ne bii day xajamal li weesu wër lépp ndax loolu kenn du ko laaj kenn du ko laaj ndax laaj bi nga laaj nit ki loolu toroxal na ko benn réponse bi mu lay jox ba boobu rek la lay mën a jox waaw te ñi koy seetaan loolu yitteelu leen masalan bu mu sëñ Mbàkke laajoon loo añe tey waaw ñuy def albidaaya mu ne ma loo añe walla loo reere question boobu su ma ne nangam laa reere waaw ñiy déglu luñ ci lu ñuy jël ci xam-xam boobu te looree rek nangam laaree rek lu gàtt-gàtt mat na nangami seconde ci laaj bi te nangami seconde yooyu wàññiku na ci dund gi te li ko remplacer amul njariñ la xad daa umrun saatun minhu tushtara bi mil issamaa wal bi ay yatadayaati kon yàllaa ngi laaj Moussa lu mu yor moom xam na ko moom yàlla musaa mi yor yet bi moo xamul lim yor mbokk yi <laughs> yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot ak bëri ñu ñu yor luñ xamut hmm? waaw waaw Aji Ibrahima Sakho nee na lépp ñun ñu ngi dawal seen oto ñoom moom oto bi xamuñu ko li lay wan ne xamuñu ko as paana cee am ñu dem it ko mécanicien ba waaw wala ñay defar la ca paan léeg-léeg nga ñëw ñu xam li ci paan waaye buñ ko buñ ko jekk lee léegi pour yow lii jërul joxe dara waaye buñ ko fanaanele ba suba nga yokk xorom si walla gura gi waaw yal na yàlla dimbali yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot maa ngi suratu Daariyaat maa ngi ci ay 38 jàpp 40 Moussa ngay ñibbi yàlla laaj na ko loo yore wa ma tilka bi yaminika yaa Moussa ca saar wa loo yore mu ne ko aw yet laa yore walla samaw yet laa yore xam xam nga foofu la question réponse war na yem loo yore aw yet laa yore jeex na waaye samaw yet laa yore ci lay sukkandiku su may dox fu fu ko aajowa ci lay aj ajal jur gi ma yor am naa ci yeneen yoo xam ne du xëcc ci temps bi pour mu wax la ko mu yéen waaw waaw lii lépp la wax kan lii lépp boole na ko ca borom xam-xam yi nag ñi jàng bayaan xam-xam yooyu ñooy indi lu tax mu guddal réponse bi waaw lu tax mu guddal réponse bi la ci jiitu mooy ay teggin waaw Moussa ku ami teggin la diggante ak borom la ci jiitu kon mooy ay teggin defe naa yéen ngi dégg suñ mbàkk si la ci Al Misbah cinq heures trente tabarkàlla xab la waxtaanu fajar mu ne ci teggin xanaa kay sax loo yore aw yet addu dafa gàtt di gisuloo léeg-léeg gis ko xam ne bu julli bu sëlmalee rek day daw day daw baax na de waaye tegginde mooy nga sëlmaloon nag toog ci audience ba nag naan suñu boroom subhanallah kenn du yow subhanallah kenn du yow bi audience bi jeexee waaw alhamdulillah maa ngi lay sant ci audience bi nga ma may alhamdulilah ba muy 33 nga ne ko allahu akbar allahu akbar su ma fi jógee du ma jàppee lenn lu rëy ni ma la jàppee lu rëy allahu akbar ba muy 33 waaw nga teg ci ya nga cay teg yépp door na nga jóg àndatu tuuti def ñaar rakk wala nga dem ba ci kër gi def ñaar rakk audience bi door a jeex est-ce que noonu la ñuy def mukk allahu akbar samp saw xel allahu akbar samp saw xel baax na de baax na de waaye teggin yaa de mooy la yontu baxoon yaa ngi ci julli li feeg yaa ngi toog fi nga jullee lan la bëgg a wax mooy toogal audience bi bu ko jeexalee noonu man musuma siin ku jóge pale président dalal la nga jox ko loxo samp soo xel déedéet <laughs> musuma koo gis waaw wala Cheikh Sidil Muxtaar ngeen baal ma mun Muntaxa jox la audience nga noppi rek ne bërit samp soo xel waaw wala sëñ sëñ sëñ Babacar Sy Mansour jox la audience nga jeexal ko di jóg rek samp soo xel claqué porte ba mukk moo tax tontu yi ñu tontu ñu jàngale bayaan ñu ne teggin yi la ci bëgg ak neexitu ki muy waxal te doyalul ci wax ci moo tax wax ju neex ji moo waral mu ne suñu borom dama laa bëgg a gis cay waaye daal dégloolu ko sunu borom wax dafa ne ko sama yat la ci lay sukkandiku ci lay aj ajal jur gi am naa ci yeneen yoo xam ne ay njariñ la yoo xam ne bari na waaye teggin mayuma mooy continuer sunu borom bëgg koo woon yedd bi nag ne sànni ko sànni ko ah waaw sànni ko sànni ko ci jur yu bari lu tax ndax waliya fiiha maaribu uxra jar naa sànniw yet yet bi amal na ma njariñ mu ne ko nga ne lan sànnil na nga sànni ba yëg na lu am njariñ amu fi man mii maay borom njariñ li kon nag sànnil li nga jàpp ne am na njariñ acca allahu akbar mbokk yi daraja yeeg daraja yi puukër beeg tiitaru beeg suggu suggu geeg yépp loolooy waliya fi amaari bu uxra sànnil sànnil tiitaru sànnil maa gën diw sànnil maa raw sànnil maa man sànnil yépp summikul ci mbubb yépp sëriñ sàmbay moo ko daan jàngale moo tax suñu borom ne ko sànni ko sànnil yat wi ah ndax da koy sànni bàyyi ko fa dem déedéet bu ci dindee yooyu bu ko jëlaatee mu diw yat yi yim jàpp ne mi ngi ci yedd bi maari bu oxra nara dox digganteem ak pas-pas bu wér bi nga xam ne moom la war am ci boromam loolu jar na sànni yedd bi waaye bu ko sànnee ba yooya dañ bu jëlaati yedd bi mu diw yetam kon menn mbalit la mu bëgg recycler <laughs> waaw mbalit mu war a walbati yet wa du yet képp mu ñuy sànni ca matt yaag ñoom seen yooyu déedéet waaw déedéet waaw lu nekk na gis naa ko turki dégg naa yet waa nga jotuma caa àgg waaw xam naa su fa delloo jëmbul jéem a àgg fa nekk allahu akbar ndax turki ñoom ñeneen lañu nag waaw waa turki yii waaw macha allah ñeneen lañu mbokk yi yàlla na jàmm yaa nekk seen ak seen njaboot sànni na yet ba ca saase rek mu dégg waxe suñu borom rek daal di sànni yet ba yet bi mu ne keleng ci suuf rek daal di nekk jaan jiy dox yet ba daf na ko keleng suuf rek yet ba daal di nekk jaan jiy dox mbokk Moussa samp xelam Moussa <laughs> waaw samp xelam loolu la sunu borom doon bañ nag mu xew ca kanam Firawna waaw loolu la sunu borom doon bañ mu xew ca kanam Firawna ndax bu xamutoon yet bi mu yor ne bu ko sànnee jaan la bu demee ca kanam na bu ko sànnee bu dee jaan xil yii mu daw tey bu ko dawoon foofa kon affaire bi yàqu laa ilaha illallah Musa bu xelam sunu borom ne ko yaa Musa aqbil ca xasas aqbil ñëwal wala taqaf bul tiit innaka min al aminin ngay jàmbaar ndeysaan <laughs> innaka aminin yow ngay jàmbaar waaw Musa bul daw yow tam ñëwal ndeysaan <laughs> sëñ Mbàkke alxuraan yéeme moo koy wax nag waaw sunu borom ne ko aqbil wala taqaf innaka minal aminina ndeysaan gis nga ku ku ku ku am ku am problème nun lañ koy def laaj ko suñu yaay Xadija ba ko sunu yonente ba ne ko si zammiloo nii waaw zammiloo nii dafiroo nii waaye yokkal ay problème am ëpp naa def te lu jar jàng ci penc mi la ay nit kenn du ko yokkali problème au contraire yaa Musaa aqbil ñëwal jàkkaar lool ak sa yet wi nga sànni wala taxaf bul ko tiit innaka minal aaminiin yow ngay jàmbaar yow fii nga jaar fépp mu ne am ah, mu ne ko jàmbaar nga yow doo dawal jaan hee Musaa kon tey dana tey dana dana ñeme mooy xus a ah, wala taxaf sa nuidu asirata al ula ca jën laay ja bu góor du dawal jaan dégg nga innaka amin jàmbaar nga waaw te li ma lay bëgg a sant jàmbaara ko man te njàmbaar gi ci yow nekkul ci banu Israayil mukk waaw mbokk yi formation bi yàllay defal Moussa mooy sànni yet bi mu ne ko faral mu yoot ba jàpp ko mu nekk yat léegi nag wan na ko yoon wi Moussa sànniwaat essayé mu nekk jaan mu yoot ba jàpp mu nekk yet ba ba ba xel mi dal ci ne su ko sànnee amul tiit ba koy jàpp rek mu muy nekk yet loolu nag Firawna xamu ko Aaroona xamu ko Xaaroona xamu ko ah euh, ñu ko tuddati Haamaan xamu ko junudu xamuñu ko mbokk yi Moussa noonu mi ngi ci formation bi jeexagut bind bi moo jeex teg leen seen baaram foofu ñaan suñu borom may nu nu dund ba ajjuma te weesu ko jéggalu soxna yi nag jéggalu sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko feebar bii fi nekk yàlla na dem te yàlla bu mu del si feebar bii fi nekk yàlla na dem te bu mu si yàlla na daara yépp soqaliku ñiy soq jéem a soqali daara ñoom tam yàlla na seeni mbir ko koo xam ne boo amee doole xeex daar yàlla boo am doole